alors salaamaaleykum yéen ñuy seetaan seen euh, chaîne préférée Tacko TV tey nag dañoo def un grand déplacement ñëw fii si Malika set si ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk si koñ bi koñ bi nag nekk koñ bu doy waar gis ngeen suñu ginnaaw gis ngeen jàkka ji ni fi ndox bi mel si ñetti fan yi nga xamante ni daf ko yendoo taw mais également fanaanee ko taw ñu ñëw si koñ bi nag waa koñ bi yëpp génn am lu leen métti am li nga xamante ni bëgg nañu ko adressé autorité yi wax seen xalaat wax également seen jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund fii si koñ bi ak ndox mi ni mu mel ñu ngi fii ak euh, imam Euh, El Hadj bu Ndaw moom également si koñ bi la dëkk mu wax xalaatam après keneen e-, également bu amee lu muy wax mu wax ko ci incha allah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuy bu baax a baax ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi chaîne bi di xel muy Tacko TV tey li fi xew xam naa ne su ngeen gisee image yi da ngeen xam ne yéen ñëpp di ngeen xamal seen bopp li fi xew. li fi xew rek mooy ndox moo xamante ne ne tey sonal nañu ñun ñi nga xamante ne ne ñu ngi dëkkee fii ci gox bi. te itam nag may fàttali ne ndox mi nekkul ne ndox moo xam ne lu yàlla ji taw la suñu kaw waaye nag lu ñu jëlee ci ay nit la indi ko ci ay nit looloo fi indi ndox mi ñuy wax tamit ne entreprise bi fa nekk nga xam ne mooy entreprise malien bi ànd ci ak beneen kii boobu di Promoville li ñi waxoon ak li xew moo moo wute maanaam dañ wax loo xam ne amul ndax ay nit nga ñëw dajale ay kilifa am loo tracé wax leen leen lii ngay defee lii ngay defee dëgg-dëgg yàlla waroo ci soppeeti virgule ci sa diggante ak ñoom te tey looloo fi xew mooy ne bi ñu koy commencé ñoom bi ñu xamee ne ndox mi fii lañ ko pare pour verser ko te xam ne fii ay doomu moo ñëw fi dëkk comme ñoom ndax it amuñ lenn luñ ñu gënee ñun ak ñoom ñëpp benn lañu suñu xamee ne fii la ñuy verser ndox mi li doon yoon mooy ñu fexe ba wutal ndox mi yoon boo xam ne dina fa mën a jaar pour bañ a indil problème ñi nga xam ne dëkk nañu fi. mais yéen est ngeen ni ndox bi ñuy jëlee fële fii lañ koy sànni si yéen. déedéet xamuñu ko ndax ñoom liñ ñu waxoon mooy ne ay bassin lañ ñu prévoiral fii am na bassin yu ne ci biir ak fii ñu prévoir woon fi bassin ndekke ñoom li ñu waxoon dara amu ci commencé nañ nag ba ci biir kenn gisatu leen xamuñu fu ñu nekk ñu nga ca la la neex mais nañu jàpp ne ñi nekkaloon di liggéey ñi ngi ci coono bu mat sëkk ndax ñu bëri ci suñuy mbokk suñuy dëkkandoo tey génn nañu seen kër yi te ci lan ci ndox moo xam ne dañ koo jëlee ci ay nit indi ko ci ay nit mais ñun affaire ndox daa gaa daan na taa même bi yeneen kon yi di am problème mu ndox yëpp ñun suñ problème melut noonu ñun boo gisee tey ndox mi mel fi nii mooy ne ndox muñ jëlee feneen la indi fii mais ñun alhamdulilah ñu ngi doon sant yàlla bu baax a baax a baax mais daal coono bi ñu bi fi ne nañoo xam ne ay nit a ko jël teg ko seeni i moromu nit ànd ci nag ak groupe bi nga xam ne ñoom ñoo doon liggéey ne dañuy defal ay canal ba ñuy defar ay canal la ñu waxoon su fekkoon ne ci loolu lañ ne konoon kenn du ñu dégg ci ay wax kenn duñu dégg ci ay coow mais tey soo xoolee ci ginnaaw di nga gis ne daanaka suñu jàkk ji ñu doon sax far ndox maa ngi koy bëgg a nangu te kër yi nekk ci ginnaaw ñëpp mu ngi koy bëgg nangu ak danger yi nga xamante ne mi ngi ci biir ndox mi ay jaan lu ne ci biir ndox mi te loolu tey naka suñu xale yi di foo ci ci mbedd mi bon problème bu ne mën na ci juddoo lu ne mën na ci xew lu ne mën na ci am ku ne ci ñoom ñu ngi croiser les bras fa ñu nekk toog di ñu seetaan. depuis boobu kenn ñëw fi benn autorité maire bi wala keneen ak keneen. waaw nee ñu su préfet ñëw yebal na fi ay ndaw mais ñoom dañuy ñëw rek wax eh alors après dem jeex na maanaam wax jooju nag saafarawul dara wax moom dafay ànd ak jëf mais su fekkee da ngay wax rek dem lu wax jooju mënul jëriñ dara kon looloo looloo fi xew objectif bi ñu doon wax ne dañuy jéem a fatt canal bi ñoom ñoo ne déet bu leen ko bu leen ko fatt kon ñoom ñun bi ñu jàppee ne ñoom dañ tere pour ñu fatt canal bi jàppoon nañ ne ñoom dinañ jël ay mesures yoo xam ne dinañ ñëw dimbale askan bi fii dundu mais defuñu fi dara ba ñu demee ba léegi wax lañ fi defoon dem nañu toog mi ngi nii ñun ñoo fi nekk ci ay coow ñun ñoo fi nekk ci ay coono boo xaman ne ñun ñu fiy dund ñun rek ñoo xam te itam soo xoolee ndox mi di nga xam ne dëgg-dëgg yàlla ñu ngi ci ay coono ak ñu ngi ci ay euh, mbir yoo xam ne yu doy doy waar effectivement mbokk yi déglu ngeen ko dégg ngeen li mu wax mu nekk bu catastrophique bu doy waar nee na autorités am na fi jot ñëw mais dañuy ñëw wax rek après du am benn suivi donc dañuy bàyyi keneen également bu amee lu muy sànni si si mbir mi incha allah ñu jox ko papa salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi nuyu mbokk yëpp ñu ngi lay fay. contre Pape ma mm-hmm. ngi leen mm-hmm. li Malika gi xew fee air yi tembe. Mm-hmm. coono rek moo fi ne. coono dong la fi nekk coono dong la fi nekk kër yi nga xam ne moo nekk suñu gannaaw yëpp lu tolloo fanweeri kër yoo xam ne kenn mënatul génn ci kër gi pour uuti fu looy lekk sax problème bu rëy la ñu àndal te encore xale yi amuñ fu ñuy jaar te encore xale yi bu ñuy génn eh, na lu ci biir ndox mi loo xam ne day. yàq. dafa am ay rab yu nekk si biir ndox bi. lool no lu bari sax fu mu nekk nii kenn ñemeetul dugg kenn ñemeetul génn fu mu nekk nii eh, li nga xam ne ni yaakaaroon nañ dañuy ñëw fajal ñu fajuñ fu mu nekk nii dañuy lay yaakaar rek fu mu nekk nii lii rek mooy lu ma wax. macha allah jërëjëf bu amee keneen koo xam ne am na ay kàddu yu muy wax ñëwal ñëwal. mbooloo mi. ngeen di ziar. daanaka fii tey ji wax ji yëpp benn la. ku wax rek li ñuy wax la ñuy wax mënatuñu sax doolu leneen mais fii mu nekk ni daal fu sonn yam fa la ñu yam li ñuy wax naan sikki moo lakkandoo fi ne nii ñun ñëpp génn nañu suñu kër yi génn nañu suñu kër yi ñu ngi naan nag ko ñu dimbali rek lañu bëgg fi nekk nii te mënatuñu yaakaar lu ñu fenn lu dul fii ñun amuñu fenn lu dul fii mënuñu dem fenn ci biir ndox mi daal la fanaan ci la ñuy yendu wasalaam salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu di leen ñëpp leen wax ne moom macha allah moom kon mi moom yàqu na yaxeet yàqu na yaxeet parce que commencement bi bi ñu commencé canal yi ñëpp ko rafetlu woon yaakaar ne dañuy defal lu baax ba am na ay xale ndaw yi fi doon wax sax naan ndox mi ñuy defal nii fii lañ koy indi ñu leen déedéet defuñu loolu ay xale yu ndaw ñoo ko fi doon wax bi ba mag ñi sax mag ñi sax di leen femm naan leen déedéet tey leen rek xale yi nii dañuy defal canal ndekete yooyu ñoom dañuy ndox si biir dëkk bi di nga xapaat fii suñu dëkk bi fii te ñun ak ñee benn ñu amul différence liggéey bi moom lu wuñ si dara dara baaxu fi liggéey fi dara lu baax dañ ñoo wax lu dëgg dañ ñoo dañ ñoo wax loo ne nii amul te li ñu wax nag ñun moom lañ jàppoon waaye bu ñu xamoon ni wax ji affaire bi fii lay mujjee kon dañuy fëtt canal bi parce que loolu moo jaadu woon ñun ñi parce que mais ñu xam ñu woon ñi lii la ñuy def fii waaye bu ñu taxawulee incha allah bu déwénee bu yàlla bu mayee ba li jóge fi canal moom dañ koy fat canal moom dootul doxati parce que dëkk waale dëkk waale baa ngi nii tey mënatul génn ñëpp doxu nañu ah nit nag day wax loo xam ne nii lu am la waaye ay magay magum jëm ñëw wax leen loo xam ne nii teguwul fenn loolu jaaduwul. dégg nañu ne bëggoon ngeen ko fat ay temps ba ñu yebal fi ay policiers. waaw bëggoon ko fat bëggoon ko fat mais suñu kilifa nekk fii ñoo ñu añ ni xaar leen xëy na bu leen yàkkamti bu leen yàkkamti te ñun boo gisee boobu léegi jóguñu dafa am ay kilifa nekk yoo xam ne nii da leen di déglu waaye di leen bàyyi xel moo tax mun ñoo wax waaye ay xale yu ndaw taxawoon nañu fii ni canal bii ñuy defar fii baaxul ndox mi fii li koy versé xay ay waaw loolu ñoom xamoon nañ ko ba wax leen ko ay xale yi ndaw ñoo ko ñoo fa waxoon mais gëmuñu leen woon ñun mag ñi hmm. gëmuñu leen woon ndax ñoo xam dañuy jàpp ne ay waxu xale la hmm. mais xale boobu tey moo feeñ tey tey moo feeñ waaye xam ne lii jaaduwul hmm. ah jëlee jëleen si ay nit ñëw xam-xam si ay nit loolu tax ñu wax liggéey liggéey fi liggéey fi dara lu baax liggéey fi dara lu baax li ñu liggéey nii jaaduwul kanaam kanaam la bi ñu ci tàmbali ñëpp rafet la woon yaakaar ne dañuy defal defal lu baax mais defuñu fi dal lu baax dañoo jël ndox si ay nit ñëw yaakaar dak ñu wat si ay nit ban message ngay lancé autorité yi li may lancé mooy nañu ñëw sàkk ñu pexe si ndox mi boo ilaa bu lii weesoo ñun dañ si jóg taxaw si parce que canal bi moon yóbbu ndax ndox mi yàgg na fi am mais mu samel nii ndox mi instant toll nii guddeeg bëccëg mi ngi daw guddeeg bëccëg mi ngi daw dugg si néeg yi ak di wal di dugg si mbedd yi xale yi mënuñu jàng te gox bi yëpp kenn mënatul génne fenn lu ne ngi fi nag lu ne fi ndax dara wóorutu fi am na am na fi ay pax yoo xam ne nii sax nit mën na si dugg sax daan fi dee te lépp ñu ne ko yóbbee waaw lii nag moom dëgg du yoon waaw du dëgg du yoon waaw. macha allah jërëjëf euh, bisimilah ñëwal gis ngeen. Euh, situation bi nit ñi ñu ngi génne seen i bagage ndànk-ndànk di déménager comme ni ngeen ko gisee fële Omar euh, mu doon situation bu bu doy waar bu métti koñ bi ñëpp génn nañu pour euh, pour wax ko comme li ñu ko waxee wala comme ni ñu ko déggandooyee ñun ñëpp dañoo jël ay ndox si yeneen dëkkuwaay indi sotti leen ko fii mu nekk li nga xamante ni bon doonul loo xamante ni rafet na léegi suñu beneen papa également mi ngi fii ñu moom tamit ñu bàyyi ko mu joxe kàddoom jox wax xalaatam si situation bi. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi wa rahmatulah asalaamaaleykum maa leen nuy di leen sant di leen gërëm ah métti bi moom benn la ndax boo xoolee quartier bi yëpp génn gi wàll gi yëpp génn nañu génn wàll gee des ku xiif nag ku la ku la dimbali rek kaay lekk rek ngay xaar fi mu daal sonn nañu ndax lépp looy jënd boo ko jëndul si bëccëg bi doo ko mën a jënd si guddi gi si si bëccëg bi da ngay jënd sa reer dugal si biir doo ko mën a reer ndax kenn nekkatu fi kenn fay nekk sa kër ñu bëgg ko ñu dimbali ndax projet bi bi muy commencé laa xam ne ñii ni ñu démarré parce que fii ay ouvrier rek fi ndëkk genn wàll gi mm. ba ñuy projet commencé projet bi lañu leen ñii ni ñu ko bëgg a doxale xamuñu ko mm. ñu jël projet bi jële ko yóbbu fële mënuñu commencé ni ñu gas lat ñetti ay ay ay ay lat ñu gas leen élevé leen ñu bàyyi suñu lat bi si gannaaw te lat bi moo fi jiitu moo fi jëkk gën a yaatu tey doomi at ndax lat bi man bi ma fii dëkk boobu fi terrain la woon bu ñu daan footballé ñi may wax ñi ma li ko xam nañ ma xam nañ ko bu baax ma bëgg nañu dimbali li laay war a suuli ñun amuñu doole amuñu dara suñu kër yi rek la ñu am ay baadoole rek genn wàll ñoo fi nekk ñu bëgg ñu dimbali ñu tàyyi nañu sonn nañu ni ku ñu bëgg a dimbali gannaaw dañu dimbali ay doomi aadama rek nañu dimbali duñu nit ñi doomu aadama yi ak ñëpp a yem kenn tanewul sa morom doomu aadama doomu aadama rek la nañu dimbali man mi di wax ak yéen génn ñëpp génn nañu génn wàll yow yow da ngaa génn ñëpp génn nañu genn wàll gi kay gànn gi génn nañu genn wàll génn fee genn wàll gee fi des genn wàll gee fi ñëpp génn nañu amul ko mën a toog léegi actuellement sa kër amul mënul nekk parce que ndox maa ngi sa biir lanu lal ñëpp génn génn wàll gi yëpp man la génn génn wàllu gi daal na li ma a xam génn wàll gi nag yow xam nga li ma la wax génn wàll gi des te génn wàll gi dañu kawe sëkk bi moo leen may sens sëkk bi ñu sëkk nii actuellement moo leen may sens bu ñu wante loolu ñu dañuy génn comme ni ñu génne nañu dimbali ngir yàlla lay wasu bu ñu ko defuleet noonu projet bu may commencé laa xam ne lii jëmul kër ndax xamoon ngeen lii depuis le début mhm. nii lay mujjee kon lan moo tax teelu leen jóg ngeen dem dajaloo kaas ko. loolu la mooy problème bi mooy wàllu koñ bi mooy dañ dul génn def fois xamuñu ko woon xamuñu ko woon tamit te genn wàll gi des fois duñu génn mënoo dajale ñeen yi di leen ak euh, kii loolu moo tax mhm. ba tax na kon nag loolu moo tax bi ñu commencé laan projet bi jëm kanam mhm. fii depuis 2012 la ñu gëj a génn fii pour ndox génneenu nu fi bu doon ndoxu taw bi rek nun mën nañ koo ndax yàgg ni depuis 2012 ak léegi la lañ fi mosoon a génn mooy ndox bu fi canal bi moo ñu lor moo ñu lor man canal bi laay mën a wax ñu moo ñu liggéey bi baaxul mënoo amation defar euh, jiital bopp di bàyyi tànk bopp ngay jiital def tànk fii la ñu waxoon jëkk a élevé bu ñu ko élevé woon sax ndox mi taw mi yëpp du ko mën du dana mën a dana dana bu ñu ko gasoon di ndox mi dana mën a euh, tuuti ndox mi du dëgg ànd ak ndoxu mais defuñu ko dañ ko fi bàyyi dem gas yeneen canal gas nañ fi yeneen yeneen boo leen laaj ñu ne projet bokk si projet bi bokk si mais tamit ay doomi aadama fi ne mm, mm, mm. projet bi mënul baax fee côté bee côté bee bon fee mënul nekk dañu waxante dëgg loolu la seen nit nag boo ñoom foo waxul duñu xam sa démarche mais loolu la waaw léegi fu ñu doone leen ko yëpp kilifa ñu si war a jàpp jàpp si waaw ñu wax leen ko ngir yàlla ñu dimbali ñu actuellement daal sonn nañ ñëpp génn nañu waaw euh, gis ngeen koñ bi gis ngeen image yi dégg ngeen également kàddu yi nga xamante ni jot na fi jip par koñ bi xaaj bi yëpp génn nañ seen kër yi actuellement dem wuti feneen fu ñu nekk ndax ndox bi am doole ndax également canal bi nga xamante ni moom moom moo fi versé ndox bi am na keneen si ñoom également ku dëkk si koñ bi maire Assou mi ngi fi ñu jox ko moom mu wax xalaatam si situation bi. waa salaamaaleykum yéen waa Tacko TV ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm ak seen participation ci coono bii ñu daj xam ne ngeen xam ne ñun ñëpp a ko bokk gis nga ñun dañ ñoo yab. ñu te amul maquette amul dara andiwuñu benn maquette ñu ne mag canal bi nii lay mel kenn gisu ko ñin ñi amoon nañ ci xel ñaar suñu papa yëpp amoon nañ ci xel ñaar ne lii day andi ndox chef de quartier bi ci boppam moo ñëw ba fii ne lii du andi ndox dañ fiy def bassin mu dem ñu commencé fii départ mu dem taw bi ubbi ñu ubbi canal bi bi doon jógee montagne doon jógee marché fépp versé suñu kër verse ak Kër Massar yëpp versé fii ci ci dex bi te li mosul débordé même en 2012 bi dex bi feesee mosul mel nii suñu doom yaa ngi ku nekk da ngaa tëj sa njaboot kenn mënul génn dem boutique ba ken mënul génn dem marché kenn amul foo jaar booy dem charrette moo lay yóbbu moo andi wala nga toog sa kër fi ni toll nii nekk ci coono boo xam ne am na ñoo xam ne am na fu ñu jëm am na ñu amul fu ñu jëm mais ñu fu ñu jëm nan la ñuy def état bi ban njëriñ la ñu amal maire bi ban njëriñ la ñu amal lan lañ fi def defuñu fi dara loolu andil ñu musiba boo xam ne kenn xamul fu ñu koy waxee kenn mun waaw jaan ji jaan yi yeew bu nekk fi de pendant des années yeew bu nekk fi kenn mënul def benn effort pour yeew bu génn fi tey ndax mi bari de bu yeew bu génnee defal ñu musiba ku koy yëkkudul ñun nañ ñu dimbale sonn nañu nañ ñu dimbale jaajëf merci beaucoup merci beaucoup kàddu yi am na solo trop waaleykum salaam kuy wax rek na ñëw taxaw ñool ni salaamaaleykum waaleykum salaam waa ànd defar suñu gox ñu ngi nuyu Malika yëpp di ñëw di wax suñu doléance ak suñu xalaat ci mbir mi ndaxte bu fi tombee fii fii nii may wax yow ñu ngi taxaw nii di wax di xool lu saafara suñu mbir mais déjà maliens yi ubbi nañ ko bassin bu mag bi nekk fële voilà yaa ngi gisal sa bopp gis nga ndox mi ni muy génnee matin au soir nii lay génnee chaque jour ndox mi day gën di yokk fi ñuy wax a taxaw di wax yow ni bassin bu mag bi dañ ko tëjoon mais dañ ko ubbi ubbi nante yooyu dañu laal benn boor bi ndox mi day wër di daw di dugg kon ndox boobu yëpp fii la jëm. fii la jëm si Malika benn baraak xam la Kër Massar ndox yooyu yëpp defoon nañ ko léegi fii la jëm si si ñun. fii am xam ne ñu ngi fi dëkk fii. yëpp li ngay gis nii yëpp ay ay ay famille la ay ay kër la li yëpp. li ngay gis nii lépp ay famille ñun nag suñu communauté ñu ngi taxawal woo nañ démb benn agence bu nekk Promobile ki ànd ak maliens yi pour ñu liggéey euh, canal bi menacé nañ ko nag menacé nañ ko bu baax xamal na ko li ngeen waxoon amul. ñun bu ngeen yëgulee demee ou après demee daal ñu jóg fatt canal bi parce que ñun ñoo fi nekk ak suñuy lii mu ngi ñuy lor dégg nga soxna yi di wax ay affaire yu yeew ak yooyu lu raw yeew sax mu ngi fi lu raw yeew sax mu ngi fi noonu laa la ko mën a waxee man mënu ma jaar tur mais lu ne lañ liñ gis fi nii léegi nag suñu citoyen xoolal jàkka ji nii ngay gis ni fi la ñuy julee juma xoolal jen yi yaa ngi koy gis nii muy def yaa gis jën yi ni muy def kenn mënut fee juli juma te benn jàkka bii rek lañ am ci koñ bi waaw ñu ñaan nag autorité yi bu fekkee ñu ngi ñuy dégg ñu teel a jóg ñëw suñuy chef de quartier bëggoon nañoo génn ñu nit ñu carrément toog leen may ñu ñu dem wax ak autorité yi est may dégg bu ñu de toogee nag ba xaar xaar xaar lu yàgg déglu chef de quartier yi waxuñu ñu dara lu xew ñu jógal suñu bopp ñun jeunesse koñ bi jéem a xool nuñ ko saafaraawee daañu ko def daal ci yar ak teggin lépp luñ ko mën lépp lu ñuy def daal ñun ci kaw yar ak teggin lañ koy def ba ñu nag ba ñu bakkan génn ah parce que lii nii kenn xamul fu mu jëm buñ ko bàyyee ni xool boo boo toogoon fii pendant trente minutes nga gis ndox mi gën a yëg ndox mi lay génn nice suñu yi nii nii nii nii ku ci war a ku a dox sa doom war koy gàddu doo ko bàyyi ma dox bu timis jotee yooyu dañ lay mel ni comme ay ay gunóor si kaw dañ lay matt matt ba sa jërëm yëpp nekk ay tërgan gis nga déjà waaw léegi nag ndox mi moo yokk lool ñun mosu ñu ndox mu mel nii est-ce que parce que ñetti fan yëpp seetlu nañ ne da doon taw est-ce que situation bi ñu mel nii amul benn autorité bu doxantu ñëw xool si situation bi temps yële passé daal temps yële passé temps yële passé adjoint maire la maire moo fi yónni adjoint adjoint bi mu fi ñëwee dem na fole recensé kër yi yi mu gis ci ndox mi yëpp daal di bind ni moom dina ko jàllale ci kaw depuis loor ba léegi nag dégguñu si dara waaw adjoint boobu depuis boobu ba léegi dégguñu si dara waxuñu si dara waaw préfet waaw adjoint préfet laay wax laay bëgg a wax damaa juum adjoint préfet moo fi ñëw xam nga pour xool constaté ni préfet moo ko yónni bi mu ñëwee xool constaté na dégâts yi fi nekk yëpp am na benn moment maa ngi taxaw ci wetam mu woo maire def ko maire libre di wax ak moom maire ni ko comme loolu situation mi garaaw waxala euh, waa canal bi ñu tëj euh, fii ba solution am moom maire moom woo na waa canal bi seen seen njiit wax leen nañ tëj fii ba solution am waaye dip loolu ba léegi waa canal bi tëjuñu ba léegi nii ma wax yow tëjuñu ndox maa ngi gën di ñëw di gën a def ay ay ay jiyee yoo xam ne fooguñu ko woon fooguñu ko woon ñii daal lépp lu ñu muy autorité ku mën a doon boo ñu mën a dimbali daal ba suñu ndox mi jóge fi loolu loolu la ñuy sàkku. est-ce que est-ce que jégal lañu baal lañu baal lañu est-ce que est-ce que aussi gisu leen ni boobu ba tey yéen a ngi kaas yéen a ngi wax fu nekk est-ce que gisu leen def benn mouvement wala dajaloo dem kër maire bi wala dem mairie ba seet si ko wane seen mécontentement. waaw loolu ngay wax aussi tamit am na benn mouvement bu fi nekk bu ñuy wax ànd defar suñu gox. bu mujj juddóog léegi mi ngi bëgg a yàgg dem nañ seeti suñuy chef de quartier ñaari chef de quartier la ñu euh, góor gi Ifra Ba ak euh, Imam Cissé bu ñu demee si ñoom seeti nañ leen bon am na ñoo xamante ni jot nañoo jàllale message bi ba ci préfet ñoom fi mu ne nii képp ku autorité nekk si Malika xam nga li nekk fii ñoom autorité yooyu ma lay wax noonu fii leen yaroo seen maam ñoo moomoon fii ñoom ñoo ñu gën a xam fii. bu ñu taxawee pour dimbali ñu rek daañu ko defar xaw ma nag ñu bàyyi ñu seetaan ñoo ngi waaye ku ñu seetaan ñun ñu ànd ak yàlla allah ñoo ko déggandoo mbokk yi ba tey bu amee keneen ku ñëw également pour euh, sàddi ay kàddu ñu ñu bàyyi ko mu mu wax. oy wili asalaamaaleykum sant yàlla jun Mouhamed Saleh Ndim amoo lii lépp euh, def ah, waaye kanaan lii lii ay ñëw fii. année avant lii ñoom avant yi defar aw nu woote aw nu woote kon waaye ñoom fan ñoom def waaw fii fii élevage yi ñëpp toxu na élevage yi jinaa yi fas yi ñëpp toxu na borom kër ñëpp toxu yeew yi am fii dem dem a jàpp fii yeew demu guddi. dem jàpp yeew fi. am fii a yem tout